تنال حياة العلماء صنوف الكتب وفرائد التيمم فرتاي تيم جروم نيتلا النية مويينه بين والسعيد أكبك أطاهر ba daa ji laab ñaareelu mooy nga tiimee ci pàkk boo xam ne nii mm, dafa dafa laab boo demee tiimee ci pàkk boo xam ne dafa am sobe euh, te xam nga ko su julli yàqu na boo tiimee ci pàkk boo xam ne dafa am sobe te ko kooku dara nekkut ci boo tiimee ci pàkk boo xam ne dafa am sobe waaye danga si doon sikk sàkka ndax am na sobeem ndeet nga mu ci waxtu wi rek su waxtu wooyee nga bàyyi maa bu la moom pàkk bi dafa am nga tiimee fa du baax pàkk bu la am mooy ñaareel wa masul waji ak masa kanam ñette ngoog wa masul yadayni ak masa ñaari loxo yi ilal ko ani bas ñaari takk njare yi mooy fii góor di takk montoor ñeente ngoog kooku bu dee ci njàpp sunna la bu dee ci tiim farata وضربة الأرض أك دور النصوف الأولى بنجك بي دور بيجي نجك دور سلوخ السوف كوكو تمت فرطرا مجروم والفور أن مينغلي مينغلي ما ينغو تبول أنت تيملي بنكو رق جروم بين ودخول وقت أك دقو وقت وا أنا خار بو وقت يدقو نغو دور تيم بفكر وقت يفرس توت نغو تيم بغي فرق وقت يدقو دباخ ndax ba ngay commencé ci bu wootu du ko wattisaaluhu ak jokkale tim gi bi salaati ci julli gi tim gi ak julli gi lañ jokkaloo boo timoon ba si kanam nga doon julli lu baax juróom-ñett yooyu mooy farataay tim yéene pàkk bu laab masaa kanam masaa ñaar loxo yi ba si ñaari takk njare yi ak dóorinu suuf bu njëkk bi ak méngale ak dugg ak waxtu wi ak jokkale tim gi ak julli gi jàngaloon na leen pàkk wala farata la nga ne ko lan mooy pàkk mu ne wa du pàkk foofu moom ak turaabu mooy suuf ak lépp lu nekk si biir suuf maanaam ak mbelliti suuf mën nañ cee tiim ñi nga xam ne dafa dekk si biir suuf ni ko xorom xor yooyu yëpp mën nañ cee tiim soo ko fekkee ca barabam waaye buñ ko xasee génn ba def ko marchandise di di ko jaay soobaa dafay dellu ci xaalis te xaalis ak wurus moom lu ñu nekk nekk ci biir suuf kenn mënu cee tiim xaalis ak wurus soo ko fekkee si biir tiim mënoo biir suuf mënoo cee tiim soo ko fekkee fa nekk sax mënoo cee tiim beneen leneen lu dul xaalis nag suñ ko xasee génne ba koy jaay dañ koy yéegee rek ci xaalis <laughs> wala ci wurus suuba kenn dool si mën a tiim waaye boo ko fekkee ca barabam soobaa mën nga cee tiim boo demoon fekk suuf xorom ca fa nekk nekk suuf si mën nga cee tiim xor yi noonu dégg nga waaw kon yi nekk si biir suuf si mën nañ cee tiim lu mooy ñu génne leen ba def leen matériel di jaay ka jënd suuf waa duñ si mën a tiim waaw suuf tamit pàkk la wa tuubaa ndóobooleen maanaam xaaj suuf yëpp façon suuf yi am yëpp tamit pàkk la ñu ki ndóobooleen wala xajiru ak doj muy xeer yi wa salju ak yuul ñu ki bu fekkee dafa sedd ba ëpp ba nees bi wàcc si kaw suuf si nees boobu mën nga cee tiim waxuñ la nga formel garaas boo formel garaas ba pare a ci tiim yuul lañ la wax mooy nes bi wàcc ci kaw suuf si wala xad xaadu ak rebe rebe mooy suuf su tooy xepp nga xam ni boo ci tiim sa loxoy tooy kooku mën nga cee tiim wa naxu zaarik ak niróo yi maanaam mboolem xaaju suuf yi mën nañ cee tiim ak suuf bu mën a doon walaa jiwu su du dagan tiim bil gis si ci laso almat boo xuba da bañ togg maanaam buñ lakk lañ ci namu togg gi lakk lañ ci namu laso suuf la mën nga cee tiim ndax waxoon naa la mboolem façon suuf yi mën nañ cee tiim ak mbellit yi nga xam ne ñoo nekk ci biir suuf nu mooy bañ génne mbellit yi ko jaay kon lasu mën nañ cee tiim bu buñ jëlee lasu bi ba togg ko nag su boobaa si mën a tiim nekk ciment wala xasiiri ak basan basan kenn mënu cee tiim jëlee am na pënd <coughs> bu dee suuf su bëree ci nag ah su boobaa tiimatoo ci bassin bi waaye ci suuf si nga tiim bu pënd moo fi nekk da nga xam ne da nga laal bassin bi su boobaa doo si mën a tiim wala xashe bi ak bant wala xashe si ak ñax wala nax wi ak niroo yi maanaam yi nekk yi sax si suuf si kenn mënu cee tiim mboolem yi sax si suuf si kenn mënu cee tiim amaa yi dëkk si biir suuf si nag ni ngi xorom seeg xor yeeg yooyu mën nañ cee tiim suuf fekk mu ngi nekk suuf changé wuñ ko mën nañ cee tiim laso mën nañ cee tiim waaye xam nga laso bu ñu nee ba changé ko hmm, wala suuf si ciment ñu dem ba kii ko ba mu nekk ciment yooyu kenn du ci mën a kenn du ci mën a tiim hmm. waaw waru xisa waru xisa yolomal nañ lil mari di ñeel aji feebar fii xaayitil xajari ci miirab doj wa tuuba ak ndóobóolin il na méjid na amul amut mu naawiran ku ko jottalil suuf xeyruhu kudul moom ki yàlla dafa àtte mu feebar mënul ndox mu ne ko na tiim julli waxtu julli jot xamul kenn ku ko jotali suuf sumu tiimee waaye nag miir bi ko wër bu suuf suuf su mën a tiim lay doon maanaam miir bi xeer la walla ndóobóorin la dégg nga wala boog ban la waaw maanaam daal bu doon suuf suuf su mën a tiim lay doon su boobaa mën naa tiim ci miir boobu moom mu feebar loolu na ku feebar lañ ko may amaa bu dee da ngaa na dara darul la looy tiim si miir te suuf si nekk si dégg kuñ tëj tamit nga xam ne amoo loo jàppee tiim rek nga mën def te miir bi la wër bu nekkoon suuf suuf su mën tiim la mën ngaa tiimit ci miir boobu boo amul benn solution miir boobu tiim la mën ngaa tiim ci miir boobu bu dee miir bi defuñ ci lasso defuñ ci balance nekkul ciment waaw su mën ngaa tiim ci miir bi amma bu dee miir bi nag dañ ko dañ koo lasso wala ñu ciment ko ba mu saf-sap wala ñu def ci balance ba mu saf-sap ah su boobaa doo mën tiim ci miir boobu diree ku feebar nga nooy def amoo ndox moo jàppee te miir bi la tiim dafa am ciment mënoo cee tiim nooy def julli wàcc na la Malick nee na ku amul ndox amul tiim du julli te du fay du julli du fay loolu la Malick wax julli wàcc na ko Ibnu Qasim ne day julli day fay waaw yusalli wa yaqdi la Ibnu Qasim wax ak sama qaala Malick di safaanu lu Malick واخ دنگ اسباغ نه دوجلي ري قربام دوخ رك ولا مام تي فوم تيمه فاي اسباغ نه داي فاي رك اشهب نه داي داي جولي رك تدو فاي كون مال نه دوجلي دو فاي ابن قاسم نه داي جولي فاي اسباغ نه داي فاي ريك اشهب نه داي جولي رك كون لو ديف رك امنا كوكو واخ سي غير مالك يوم مي خامني امو ندوخ moom foo tiimee lépp loo def rek am na ko wax si ngërëm Maalik boo julliwut xaar ba am ndox fay am na ko wax boo julliwut te fayoo <laughs> Maalik loolu la wax bu fekkee dangaa ngaa julli ba pare am ndox fayaat loolu na Qaasim loolu la bu dee ngaa julli rek te fayoo achab loolu la wax hmm? loolu am na lu ko am na ko wax dégg mu ñëw ci sunnaay tiim yi ne wa sunnanuhu sunnaay tiim yi tajdiidu saidi mooy beesal pàkk li day yi ñeel ñaari loxoom beesal pàkk soo ko waxee nag mooy dóorinu ñaareel xam nga tiim am na ñaari dóor danañ ci ñëw dóor bu njëkk bi kooku farata la moom lañ jàll dóorinu ñaareel bi nag mooy beesal pàkk bi loolu la na ci beesal pàkk ñeel ñaari loxo yi ñaareel bi moom sunna la wa masuma baynal kuwayni ak masaa yi nekk si diggante tikki njare yi wala mirfaqeyn ak ñaari conc yi fa ñuy takk montoor ba ci conc yi diggante boobu masaa ko si tiim sunna la amma si njàpp farata la kon foofu tiim ak njàpp dañ see weccoo masaa loxo yi ba si takk njare yi si tiim farata waaye si njàpp sunna la masaa la gën a takk njare yi ba si conc yi si tiim sunna la waaye si njàpp farata dañ see weccoo wa tartiibu ak toftale toftale it sunna kon sunnaay tiimi ñett la dóorinu ñaareel ba ak masa diggante tikki njaay ba coon ci ak toftale luy toftale toftale mooy nga njëkk a kanam gi door see teg loxo yi dégg loolu mooy toftale tiim kuy tiim kanam gi lay njëkk a masa door a masa loxo yi borom téere bi jàngalewul nan la ñuy waaye ñun darañ ko wax bu bunt jeexee wa fadaayilu ngeneelu tiim yi a tasmiyatu mooy wax bismillah ngeneeli mooy yi nga xam ne boo ko bàyyee si tiim yàqut dara boo ko defee moo gën jar naa sàmm wanteeg nag bis njëkk mooy booy tiim boy dóor sa loxo yi na nga wax bismillah wa taqdimu jumna ak jiital ndeyjoor alal yusra teg càmmooñ na nga njëkk a masa loxo ndeyjoor bi door a masa loxo càmmooñ bi wa taqdimu zahiri ziraai ak njëkkee bittu xasabu gi ala baat nii teg biir bi xasaru bi mooy loxo bi ba ci conc yi loolu tàllalu da nga njëkkee gi mooy gannaaw ga door a teg biir bi dégg nga waaw biir bi mooy kanam gi fi nga xam ne booy téye fa ngay téye foofu mooy kanam gi fi nga xam ne nag moom booy téye doo fa téye foofu mooy gannaaw ga kon foofu ngay njëkkee ba ci conc ya door a ñëw ci biir bi ba ci cat baaraam yi zira bi mooy yetti loxo yi noonu rek ba ci conc yi loolu mooy zira xasabu gi ak njëkkee bitti xasabu gi ala baatini yi teg biir bi wa muqaddamihi ak commencé ci commencement bi ala mu axir yi ba ca muj ga na commencé ci baaraam yi ba ca mujj mooy conc ya loolu danañ ko gën a leeral kon bismillah njëkkee ndeyoo teg càmmooy njëkkee bitti xasabu gi teg biir bi njëkkee ca baaraam ya na commencé ca baaraam ya ba ca mujj ga loolu mooy nañeer yi muy ñeent dégg nga wana waaqidu yu yàq tiim kal wudu yi comme yu yàq njàpp lépp luñ la waxoon ne la day yàq njàpp xamal ne loolu rek day yàq tiim yokku nañ ci nag am ndox balaa ngay julli su fekkee dangaa tiim ba pare daal di am ndox te waxtu kat yaatu na jàpp ñëw julli xaj na fi su boobaa tiim googu yàpp na da jàpp ñëw julli da ngaa ba pare avant ngay julli nga am ndox te jàpp ñëw julli xaj na fi tim gi yàqu na demal jàpp ñëw julli kon loolu dana yàq tim waaye nag bu dee tim nga ba pare am am nga ndox waaye nag jàpp xaju fi boo fi ne jàpp ñëw julli waxtu wi génn hmm. su boobaa da dangay da euh, julli ci tim googu dégg waaw boo jullee ba pare nag door am ndox kooku ñett ñii daal ñoom ñooy baamuwaat ñu dul ñett ñi duñ baamuwaat mooy koo xam ne nii amoon wóor na ndox maa nga neree waaye daa am loo ragal moo tax jëli wokk ni ki ay bandi yu la yu la yu la dogaayee wala boog sàcc yu sàcc sa gannaaw moo tax de moo jëli ndox ma dañ naa la tiimal hmm? soo tiimee ba pare gannaaw gi la loon ragal dem boobaa dañ laa ne dama jàpp jiwaat nga baamuwaat wala boo yow nga yaakaar ne da nga am ndox ñee la xaaral ba ci mujj waxtu nga door a tiim ndax ku yaakaar ne dana am ndox danga xaar ba ci mujj waxtu mu door a moom nag mu tiim ci commencement waxtu bi su boobaa it gannaaw ga bu amee ndox moom yaakaaroon dañ naan ko jàppul nga julliwaat loolu dañ koy baamu rek su fekkee waxtu boobu génn gul su waxtu bi génnee nag mu mu ba dégg dégg nga naka noonu tamit dafa tële am ndox ni ki ko lafañ amul ku ko andil ndox te moom mënu ko wutali wala ku feebar mën naa laal ndox sax ci feebaram mboobu waaye amul ku ko andil ah, mu daal di tiim julli gannaaw ga am ko andil ndox su boobaa it dafay jàppuwaat ah, julliwaat su waxtu bi génn su waxtu bi génnee mu ba kon ñett ñi dañuy jàppuwaat julliwaat gannaaw buñ tiimee ba pare mooy koo xam ni amoon na ndox mi waaye dafa am lu mu ragal moo tax jëliwut ko gannaaw gu lam ragal bu dañee dana dana baamuwaat wala koo xam ne nii dégg nga dafa amoon ndox mi waaye dafa amutoon ku ko indil te mënu koo indi gannaaw gi bu amee ku ko dana dana baamuwaat wala koo xam ni yaakaaroon ne dana am ndox mu teel a tiim gannaaw gu ndox moom yaakaaroon bu ko amee dana baamuwaat dégg nga su waxtu wi génnoon nag waaye ñoom ñëpp su waxtu wi génne la bu dee nag avant muy julli la am ndox kooku dama ko baamuwaat pour mu gën a leer waaye moom jàpp ni eh, tim gi yàqu na dafay jàpp bu dee waxtu wi yaatu na dégg am na it koo xam ne ni bu jàppee julli ba pare it bu tiimee julli ba pare it tiimam gi yàqu na gannaaw gi bu amee ndox mooy ku sàgganoon lool koo xam ne ndox mi mu ko def ci ca bagaasam bi ne da koo fàtte tem tim julli te kat bagaasam bi ndoxam ko ah ba mu paree dégg nga dégg nga waaw waaw mu si biir julli kon bii ba mu jullee ba digg ba mu fàttaliku ne ah moom kat mm, ndeke amoon ndox si bagaasam bi soo waa julleem googu yàqu waaw kon ku ko fàttaliku si biir julli gi fekk yow ndox mi jegoon na la lool su julli gi yàqu na dégg nga waaw biir julli gi la dégg nga wala tusalla duñ julli faridataani ñaari farata bi teem mun waa diñ ci benn tiim benn tiim kenn mënut a julli ñaari farata wa man tayamama ku tiim li faridatin ñeel farata jaaza dagan na lahu ñeel ko an nawaafilu naafile yi baadaha gannaaw tiim boobu ku tiim julli farata gannaaw nga mën nañ cee teg naafila si ñetti condition danañ ko wax wa masul musaf ak laal kaamil mën na ko def wa tawaaf ak wër kaaba ga wa tilaawatu ak jàngal quran innama nam yéen na zalika loolu wa tasala tam jokk bi salaati si julli gi walam yaxruj te génnut al waxtu waxtu ku tiim julli farata mën na cee ñetti ñett yi mën na cee xeet naafile julli gu dul farata mën na ko si tegaat mën na see teg laal kaamin mën na see teg wër kaaba si ñetti condition bu fekkee ba muy tim di julli farata yéene woon na bu paree def yii te it paree ci julli farata gi rek la ci teg yooyu te waxtu julli farata boobu génnut ñetti condition yi bu dajee mm, bu tiimee julli farata ba pare mën na see teg yi mu tudd ci gannaaw waja sa dagan na bi teemu mi naafilati ci tiimal naafila kullu ma zukira lépp luñ tuddoon illal fardati lu mooy julli farata boo tiimee julli naafila ba pare man nga see teg yéen doon yëpp mooy eh, laal kaamel wër kaaba ga jàng alquran waaye nag mënoo see teg farata ku tiim julli naafila mënoo see teg farata ndax farata moo ëpp doole naafila wa man salla ku julli alencha gaye bi tayam si tiim xaama na jug li shafin nga julli shafa wal watir ak witar baadaha gannaaw gaye googu waxoon na la léegi boo tiimee julli farata mën nga see teg julli gu dul farata wat safa witar nag du farata kon ku tim julli gee man na see teg safa ak witar waaye na ko yéene waale foofu te it bu mu ko yéexee maanaam buy pare si gee na ko si teg te it mm, bu mu bi génn moo loolu tax mu ne min xëy taaxi yéen ci lu yéexee bu mu ko yéexee bu timee julli gee ba pare na si teg safa ak witar man tey ma ku tiimam kuti min janabati ngir janaba fala budda du mën a ñàkk min niyetea ci yéene ko ku tiimal janaba il faut mu yéene ko waaw bu tiimee fekk mu ngi amee janaba janaba mooy sëy wala génne man niyu ci bànneex bu ñu baaxo loolu mooy janaba su fekkee dafa sëy wala mu génne mën niyu ci bànneex bu ñu baaxoo amu ndox danaa ko da ngay tiim julli ndax du ñàkk julli waaye nag buy tiim foo mu teewlu waale janaaba jooju waale janaaba jooju waaw mu tiim comme koo xam ni dafa yore janaaba yéene waalo aussi bu nag tiim comme koo xam ne ni dafa ñàkk njàpp rek amul ndox su boobaa du baax faslun waaw balaa boobu ñu ñëw ci nan lañuy ñuy tiimee parce que moom jàngalewul ci téere bi nu ñuy tiimee tiim boo koy def da bu dee da nga amee janaaba nga yéene waale toj mu mag dégg nga dóor sa loxo yi si suuf ba pare fëgg sa loxo yi ñaari baaraam ndey yi ñuy fëggalante nànk fëgg bu oyof nga koy fëgg su paree nga jël sa loxo càmmooñ bi teg ko sa cet loxo ndeyjoor bi sa cet baaraam yi xaw a loxo càmmooñ bi nag di masaa waaye masaa googu bul masaare baaraam ndey jëlal ñeenti baaraam yi rek xaw bank sa loxo càmmooy bi si ñeenti baaraam yi di masa bul masaale baaraam ndey bi di masa dégg nga boo xoolee doo masaale baaraam ndey bi danga koy ba moom mu beru na li ngay masa dégg nga sa loxo yi na ko bank loxo càmmooy bi na ko bank loxo ndeyjoor bi moom ngay masa di masa masa ba si conc soo masaa ba si conc yi gi nga njëkkee maanaam loxo bi nga njëkkee nga ñëw ci biir gi commencé ci lem conc ba ngëpp moom di masaa di masaa masaa basaa ba si takkaay njare yi xam nga masaa am nga bitti gi commencement loo euh, baaraam yi ba si takku njare mhm. ba ngay dem boo masaa ba si takku njare yi nga jël sa biir baaraamu ndeyu càmmooy bi rombale ko si kaw baaraamu ndeyu ndeyjoor bi mhm. parce que ba ngay dem masaa woon koon nga masaa càmmooy bi noonu ni ñu ko waxee ba su conc yi mm, defee ko comme noonu biir baaraamu mm, euh, ndeyjoor bi nga def ko ci kaw baaraamu euh, càmmooy bi bu ndey bi dégg nga soo defee noonu ba pare nga masaa ñaari tenq yi tenq ndeyjoor bi ak càmmooy bi nga masaa ko raay ko su paree euh, boo ko raay na nga xalilaale baaraam loxo yi bu ko defee tiim bi bi jeex noonu la ñuy tiimee fas li ab la fil haydi ci mbërëg buntu bi mo lay jangal mbërëg mbërëg deral la gi nga xamni ni nii baax ab la dana ko gis sak weer léeg-léeg du jigen ñep nak parce que jigen mën na gis mbërëg gi rek dundam du ko gisat waaw mën na ko gis par weer mën na koo gis par fukki fan ak juróom benn waaye su ko gisee moom nu mu néew néew il faut mu toog fukki fan juróom door koo gisaat kon baaxam jigéen la buy jigéen di gis muy deret yoo xam da koy da koy gis ku nekk ak mbaaxam nag nam koy gisee ak nam koy koy dikkalee waaye su gisee daal mu dagg il faut mu toog fukki fan ak juróom mu door koo gisaat bu dul rek deret ju njëkk ja moo jeexagut wala boog feebar la wan nisaaw jigéen ñi mubtilaatun kuy commencer gis mbërëg la wa muxtaadatun ak ku baaxoo gis mbërëg wa xaamilun ak ku biir di gis mbërëg jigéen ñi ñetti xaaj lañ ku commencé gis mbërëg koo xam ne ni dafa commencé gis mbërëg mosu koo gis ak koo xam ne yàgg na koo gis mooy ku ko baaxoo gis ak koo xam ne dafa ëmb ba pare di gis mbërëg wax nañ ne mën naa nekk waaye foo mu feeñ ci ëmbu nit ki su fekkee dafa gis mbërëg weer ci biir ëmbam ah biiram mën naa dem ba fukki fukki weer waaw xam nga biir juróom-ñeenti weer rek bu ko nit ki bu ko nit ki ëmbee ñaareel mooy lu gën a euh, mat ci ëmb lañ gën a baax daal ci ëmb mooy juróom-ñeenti weer waaye bu fekkee si juróom-ñeenti weer gis na mbërëg weer mën naa dem ba fukki weer dina wax ne bu lu mu gis mbërëg ci biir ëmb bi rek dara feeñ ci ëmb bi waaye nag borom wax dëgg moom daa ko dana jigéen dana biir ba pare di gis mbërëg wa aksaru xay di li gën a bëri ci mbërëg li moom talaat ñi laa ci commencé gis mbërëg xamsata achara yow man fukki fan ak juróom la ku commencé gis mbërëg lii gën a bëri ci ay fanam mooy fukki fan ak juróom waxuñ la foo mu mat ko waaye du ko ëpp mën na koo gis benn fan mën na koo gis benn digg mu dagg ñaari fan ba ñetti fan ba fukki fan ak juróom mën na koo gis waaye bu ëppee fukki fan ak juróom dañ naan ko lii feebar la dama sangu te julli te def lépp loo doon def waaw kon koo commencé gis lu mu bëri bëri du romb fukki fan ak juróom bu rombee rek feebar la wali moxtaar te ñeen naa ji baaxoo gis ma mbërëg a aadam ki ko yàgg gis lan moo gën a bëri ci fanam aadam parce que jigéen dañoo wutee ku nekk am na loo ko doon gis ku ko yàgg gis il faut nga am sa aada boo koy gis benn muy benn fan wala muy ñaari fan wala muy ñetti fan ça ku nekk daal ak sa aada ko yàggee gis nag dañ naa la xoolal sa aada rek loolu la فإن تمارا نم كنت نبيع مقدم مدرجي زار ji ثلاثة أيام نتفن ما لم تجاوز فكرهم ñetti fan عشر يوما فك فنجرهم بفكي أنك درجي دفع كنتني أك ndawsi borom bu fekkee dafa ndaw si aadaam moom yàgg na koo gis aadaam juróomi fan loon ci misaal deret ji ñëw tey am juróomi fan daggut dañuy xool ndaw soos ndax moom aadaam dafa yemoon benn place wala aadam dafa wutee bu dee aadam juróomi fan la woon chaque jour juróomi fan la daa nekk danaan ko yokk si ñetti fan mooy juróom-ñetti fan su daggut nga sanguta julli su daggee si biir ñetti fan yooyu baax na sangul te julli su daggut nag ba ñetti fan yi jeex daggut sangul te julli xam ne dara jooy jigéen feebartu waaw bu dee aadam na dafa wutee nekk léeg-léeg nekk juróom fan léeg-léeg mu nekk juróomi fan léeg-léeg mu nekk juróom-ñaari fan dañ naan nga xaar ba ëpp sa aada jeex maanaam boo amee juróom fan daggut bul yokk xaaral juróom-benn fan bu nga xaar juróom-ñaari fan parce que sa aada daan na ma juróom-ñaari fan boo amee juróom-ñaari fan daggut nag nga door a yokk ñetti fan su daggut nga sangu te julli xam ne feebar la mhm. juróom-ñaar boo si yokkee ñett fukki fan lay doon kon su boobaa ko mën na ko gis ba fukki fan dégg loolu tax mu ne fayn tamaala nañ continué ne bia ak ndaw si addamu deret ji zaadan na dolli salaasata ayaamin ñetti fan maanaam tujaawis fekk rombut xamsata asara yawman fukki fan ak juróom lu mooy bu rombee bu yokkee ñetti fan aadaam romb fukki fan ak juróom su fekkee boo yokkee ñetti fan sa aada romb fukki fan ak juróom su boobaa xool la nga ci mën a yokk nga yokk ko si misaal ndaw si aadaam fukki fan ak ñett la loolu daan gis mu dara fukki fan ñett tey am na fukki fan ak ñett daggut kenn du ko wax yokkal ñetti fan ndax bu yokkal ñetti fan nekk fukki fan ak te mbërëg ci ku ko baaxoo gis ak ku ko yàgg gis yëpp ku ak ku ko door a gis yëpp mënul romb fukki fan kon dañ naan ko yokkal ñaari fan bu dee sa aada fukki fan ak ñett loon daggut ñaari fan xaaral ba mat fukki fan ak juróom moo def fukki fan ak nga ba bu dee aadaam fukki fan ak ñeent la woon mm. am fukki fan ak ñeent daggut dañ naan ko yokkal benn fan muy fukki fan ak juróom bu daggul nga sangatu julli xam ne feebar la bu dee aadaam fukki fan ak juróom la mu am fukki fan yokk dara ndax su yokkee mu romb fukki fan juróom dañ naan ko sangul ta julli xam ne feebar la kon loolu lay wax ko aadaam manqué fukki fan ak juróom te bu yokkee ñetti fan du romb fukki fan ak juróom dañ naan bu mbërëg mi sa aada yokkal ñetti fan bu daggee baax na nga sangutu jullit bu daggul nga xam ne feebar la sangutu jullit bu dee nag bu yokkee ñetti fan aadaam dana romb fukki fan ak boobaa kon mbërëg mi dana romb fukki fan ak juróom su boobaa dañ naan ko mm, yokkal rek lañ ca mën a yokk ba mat fukki fan ak juróom waaye nag bu mu romb fukki fan ak juróom ndax mbërëg du romb fukki fan ak juróom lu mooy ci ku biir loolu lay wax wala xaamili ñeel naa ji ëmb banda salaasati ashurin gannaaw ñetti weer xamsata ashra yawman fukki fan juróom wa naxwaha ak yu mel ni fukki juróom wa banda sittati ashurin gannaaw juróom benn weer ashruuna ñaar fukki fan wa naxwaha ak yu juróom ñaar fukki fan ku biir dañu xool ndax am na mois wala amagu trois mois su fekkee amagu trois mois moog ñeen jàngale woon benn la bu dee ku ko na topp aadaam bu aadaam jeexee te daggul mu yokk ñetti fan bu daggul mu sangatu julli xam ne feebar baax ku ko door a gis la dañ naan ko yow moom amul aada ak lu mën mën rek bu daggul ànd ak moom rek fekk muy matee fukki fan ak juróom bu daggee avant fukki fan ak baax na bu daggul avant fukki fan ak juróom nga bàyyi ko mat fukki fan ak juróom bu daggee nga sangutu julli bu daggul nga sangutu julli xam ne feebar la ndax du romb fukki fan ak juróom ku ëmb kon avant muy am trois mois noonu la gannaaw mu amee trois mois nag yu mat sëkk ba bu mu amee six mois mën na koo gis ñaar fukki fan moo tax moom fukki fan ak juróom ak yu juróom dafa yóbbaale juróom muy ñaar fukki fan gannaaw mu amee trois mois ba mën naa gis mbër rek ñaar fukki fan moom dañ naan ko yow bul toppati sa aada bu mbërëg mi ñëwee baax na bàyyi noonu rek même bu rombee fukki fan ak juróom bàyyi noonu bu dee ba am ñaar fukki fan nag tagagur nga sangu te julli xam na feebar wa baada sittati ashurin gannaaw juróom benn weer hmm. ashuroona ñaar fukki fan la woon a waawi niroog yooyu bu fekkee nag dafa dagg dafa euh, biir ba am juróom benn weer ba bi mu amee doom di gis mbërëg hmm. soo ko mën ngoo gis weer mën ngoo gis ñaar fukki fan ak fukki fan mën ngoo gis weer ko am 6 mois ëmb ba doom diggante boobu bu si gis mbërëg mën na koo gis hmm. weer kon nu mu yàgg yàgg bu mu bu mu bu mu bu mu sangu na jàpp ne dafa gis mbërëx rek bu matee weer nag daggut mu sangu te julli xam ne loolu feebar la fay xataanam dagg na adamu daraji la fa xat na tàppe ay yaamu ay fanam xataa tukamila bata mu matal aadata adam kii nag deret ji nekkul na dafa dikk rek benn yoon waaye dafay dagg ga ñëw moom juróomi fan lay gis mbërëg waaye yoon bi su ko gisee benn fan dana dagg benn fan saa yu daggee na sangu ta julli waaye na compter fan bi mu dikk rek fan yi mu dagg du ko compter kon kooku boo xoolee dana mat fukki fan yoo xam ni juróom yi julli na ko yeneen juróom yi nag la compter bu fekkee juróomi fan mooy adam te bu dikkee tey dana dagg suba kon bu dikkee tey bu mu julli na compté am na benn fan bu daggee na sangu te julli fan boobu bu mu ko compté bokkul si juróomi fan su dikkaatee mu bàyyi julli compté waat ne am na ñaari fan bu daggaatee mu sangu te julli noonu la koy toppee ba juróomi fanam yu mat bu daggee baax na bu daggul mu continuer ko noonu yokkaat ñetti fan hmm. Hmm. bu daggee baax na bu daggul mu sangu te julli ndax borom aada moom saa yu aadaam matee rek. Mm, mm, daggul ñetti fan la ci yokk bu bu daggul mu songatu julli lu mooy bu yokkee ñetti fan mu romb fukki fan ak juróom su boobaa la mën a yokk loolu lay yokk loolu lay wax ne bu deret ji daggee na compter fan yi muy gis deret rek fan yi mu gis deret rek lay compter ba aadaam mat su aadaam matee nag mu def comme noonu ma a wax. bu daggut bu dagg bu julli baax wala yaxilu du dagan lil xaayidi ñi laa salaatun julli wala sawmun du caagin xoor wala tawaafun du wër wala masu musafin du laal kaamin wala duxulu masjidin du dugg jàkka wa alayha war ko qadaaw sawmi fay koor gi duuna salaati wala julli gi wa qiraatuha jàngi ndaw si aji dagan la du dagan ci ku mu def benn si du julli du xool du wër kaaba ga du laal kaamil alquran waaye mën naa jàng alquran fuutee ku yore janaaba muy kuy sëy ku sëy wala ku gis mbërëg kooku moom du laal alquran te du jàng alquran lu mooy aay yu néew yooyu musoo ku yore janaaba amma ku yore mbërëg moom du laal alquran comme ku yore janaaba waaye mën naa al alquran dégg nga kon foofu bokkuñ foofu ku yore mbërëg moo fa gën a yombale dégg waaye yore janaab moom teewul laa xoor waaye ku yore mbërëg du mën a xoor kon foofu ku yore janaaba moo fa moo fa jekku boo yore janaaba ba faja jot sangoo du yàq sa koor yow daal fexeel sangu rek balaa waxtu julli jot dégg waaye ku yore mbërëg moom du sañu sax koor dégg waaw dégg yii lañ ko tere du dugg jàkka moom mu yore mbërëg ak ku yore janaaba yëpp ku yore mbërëg nag dana fay koor gi waaye julli yim ñàkk julli du ko fay jigéen bu gisee régal du julli waaye julli du si fay dara du woorit waaye woori nag dana ko fay wala yaxilu du dagan li zawjiha ñeel jëkkëram farjuha péem jëkkër ji du laal péem wala maa bay suratiha du caagil nekk si diggante ji mbaxi waru batiha ak ñaari ba xatta taxtasila ba ta mu sangu jëkkër ji du laal sawukaayam mooy payam li ko dalee si ci ba ci xom du ci laal dara daf koy xaram feeg ba sangoo dégg sangoo pare nag mu sax te sanguwut du ko bu daggee ba mu nag ci lay door a euh, sañ lam sañoon moom bu njëkk ci diggante ji mbax bi ba ci ba ci xom yi fasul li ab fas dara desin mooy deretu njureel jigéen buy gis deret buy gis dégg nga buy am doom dana gis deret deret jooju moo tudd nifaas deretu njureel bu daggee dana sangu comme mbërëg xataa jigéen bu fekkee dafa am doom te gisul benn deret yi dana sangu wa nifaasu gësin kal xay di comme mbërëg fi mani ci li ñuy tere gësin moom mbërëg moo bokk ñoo bokk li ñuy tere kon danañ tere xoor danañ tere julli danañ tere laal kaamin waaye mën nañoo jàng alquran ñoom ñaar ñëpp yi ñu waxoon fee la ñu wax fi dégg nga waak suru li gën a bëri ci gësin nag si tuune yow man juróom benn fukki fan la gësin nag moom mën naa dem ba soixante suur juróom benn fan waaye mbërëg moom lu mu bëri bëri jours ndax ki gën a bëri la ci mbërëg mooy ku biir ba am six mois ba mu mi doom te ku trente jours ci ëpp gësin nag moom mën naa dem ba soixante suur moo gën a bëri nem dagg na a addamu daraja xabla njëkk juróom benn fukki fan yi walaw fii yawmil wiladati donte ci bisam njuréel bi la ixtasarat na sangu wasalaat tam julli ay baaxoo yooyu moom da gis rek bàyyi bu daggee baax na nga sangutu julli bu demee ba mat juróom benn fukki fan nag dagg baax na nooy nga sangutu julli bu daggul na nga xam ne feebar la ndax du ëpp juróom benn fukki fan dégg nga moom na amul ku ko baaxoo gis ak ku ko ñoom ñëpp si yem mun naa dem ba juróom-benn fukki fan bu fekkee nag deret ji dafa dagg avant juróom-benn fukki fan nee na sanguta ta julli waaw donte bis bu mu jur am doom la dagg ta julli la la dagg euh, na sanguta ta julli bu ñëwaatee nag bu daggee mu sangu boobu julli mu ñëwaat nag loolu wax ne faysa en wala nem baamuwaat na atam mu deret ji fen kaanem nekk na baynuma seen diggante xamsata achara yawman fukki fan ak juróom faak sara mbaaloo ko gën a bari kaana nekk na a asaani deretu ñaareel ba xay dan di mbërëk wa illaa nemmatul fukki fan ak juróom damma na ko tàpp a awali ci deret jëkk njëkk ya wa kaana tam nekk min tamaamin nifaati di motal gësin dégg nga bu fekkee deret ji dafa dagg te juróom benn fukki fan matut na sangu te julli bu deret ji ñëwaatee day xool day xool ba daggee ba bu muy ñëwaat diggante bi mën na fukki fan juróom wala déet su dee mën na ko ah na xam ne deret boobu deretu ñaa mbërëg la ndax jigéen bu laabee bu toogee fukki fan ak juróom rek mën naa gisaat deret kon ko gisoon na gisin ah ba mat fukki fan ak juróom mu daal di gisaat deret dafay jàppee deret jooju mbërëg gisin nag mooy deretu njuréel mbërëg nag mooy baax ak jigéen bokk na ko jàppee mbërëg delluwaat ci atti mbëri lu ñu waxoon ci gannaaw bu dee nag diggante ba mu daggee ba bu ñëwaat motul fukki fan ak juróom ah dafay jàpp ne deretu gësin bu njëkk ba moo jeexagut parce que matagutoon 60 jours matagutoon juróom benn fukki fan mm-hmm. nga xoolaat rek di euh, xool ñaata la amoon bu dee ñaar fan la amoon ah continuer rek di kontu fekk ba mu matee euh, juróom benn fan bu fekkee dagg na it matul juróom benn fan ah mu sangatu julli bu ñëwaatee it mu defaat loolu hmm? ah, bu ñëwaatee te matul fukki fan ak juróom mu continué waat rek fekk mu amee fukki fan ak juróom ci gësin dégg nga misaal bu fekkee dafa am ñaar fukki fan ci gësin gi mu ragg avant quinze jours mu ñëwaat ah na jàpp am na ñaar fukki fan ci gësin commencé ba mu ñëwaatee di continué mu continué waat fan daggaat avant 15 jours mu ñëwaat am na 40 jours euh, continué waat boo amaatee ñaar fukki fan bu daggee baax na bu daggul mu sangatu julli xam ne. feebar noonu la koy toppee waaye nag su daggee xaar ba mu am fukki fan juróom mu door a ñëwaat na jàpp ne deret jooju ñëwaat deretu mbërëg la ndax jigéen li ëpp ci laabam kenn mënu koo compte waaw waaye lu gën a néew ci laab fukki fan juróom la waaw jigéen foo mu toog fukki fan ak juróom door a gis mbërëg bu ko gisee ba mu dagg moo xam mbërëg la gis wala gisin bu daggee il mu toog fukki fan juróom door a gisaat beneen deret kon li gën a ci laabam fukki fan juróom la boo gisee nag hmm, ba mu dagg mën naa toog diir dundam te ko ko gisaat moo li gën a bëri ci laab amul doyo waaw laab moom mën naa laab laab diir ak dundam te du ko gisaat mën naa nekk waaye waaye mu toog fukki fan juróom moom door koo gisaat gannaaw bu mu daggee kon téere bi boo xoolee ñetti partie la partie bu njëkk bi daf ci wax ay warugar ak ay tere yoo xam ne ni jëm na ci mukallaf bi yu war a def ak yiñ ko teree def partie ñaareel bi mooy laab laab nag ñaari xaaj la laab ci sobe ba laab ci sobe mooy setti sobe jàngal na la sobe bu la taxee nañ ci seetee ak booy sikki yi nga war a wiis ak yëpp jàngal na ko ci gannaaw ñaareel bi mooy laab si toj laab si toj mooy jàpp wala tiim wala sangu boo xoolee borom téere bi jàngal na lépp lu aju ci wàllu njàpp jàngale lépp lu aju ci wàllu tiim jàngale sangu ci aju yi war a sangu ak yi aju foofu yëpp jàngal na ko tey nag la jeexal ci wàllu laab si lu mujjee mooy mbiram mbërëg a gisin xam nga yooyu dañuy waral sangu hmm? Hmm, jeexal na ci wàllu laab mu war a ñëw ci wàllu julli kon téereb ñetti xaaj la digle ak yi tere ak laab ak julli loolu loolu wax dari jàngale julli nag ci lay mottale téere bi mu ngi ko commencé fii faslun lii ab fasala la fil awqaati ci waxtu yi dafay jàngale waxtu julli al waxtu waxtu almuxtaaru bada bañ tànn li zuhri ñeel tusubaar min zawaay shamsi muy commencé ci jéng ak jant ba ila axiril qaamati ba ci mujjëg taxawaay ba waxtu wiñ tànn pour tusubaar muy commencé su jant bi jéngee jëm xarf ba ci mu mujjëg taxawaay mu mujjëg taxawaay mooy boo demee ba sa ker tolloog jant bi penk lay génnee bu génnee penku dana dem ba ci digg asamaan si boobu tusubaar jotagul waaye saa yoo xoolee gis ne jant bi xarfu la gën a jege rek nekkatul ci digg asamaan waaye jëm na xarfu jéng na soo boobaa tusubaar jot na muxtaar mooy waxtu bu ñu bëgg nga julli ci fu tusubaar yem mooy boo demee ba sa ker tolloog yow loolu mu jóg taxawaay boo demee ba sa ker tolloog yow xamal ne muxtaaram tusubaar jeex na waxtu bu nekk dafa am muxtaar ak daruri muxtaar mooy waxtu bu ñu bëgg nga julli daruur yi mooy waxtu lor wi kon muxtaaru tusubaar bu jant bi jengee ba sa ket tolloog rek jeex na fan la waxtu loram commencé mooy ku am ngànt fu mu fu mën na faa julli waxtu lor wi foofu fu mu commencé dana ci ñëw wala muxtaaru waxtu bu ñu tànn li la ansari ñeel takusaan mm. mu neen xaamati muy ca taxawaay ba ilal isfiraar yi ba ca gel ak jant ba mm-hmm. nag muxtaaram mu ngi commencé fu muxtaaram subaar yem mhm. bu sa ker tolloog yow fa la tàkkusaan commencé jot na mhm. fu mu yem bu demee ba jant bi gel mooy bu demee ba xonq mel luy lakk mburu waaw ñii bu demee ba sa ker mat la ñaar bu demee ba sa ker mat la ñaar rek xamal ne muxtaaram tàkkusaan jeex na tàkkusaan ak tusubaar bokk nañ daruri mhm. moo tax ne wa daruri huma seen daruri ñaar ilal xuru bi dem na ba jant ba so ñoom ñëpp seen waxtu dafa gudd tusubaar bu jant bi jengee la commencé ba timis waaye muxtaar moom mu ngi yem ci bu sa ker tolloog yow kon bu sa ker tolloog yow fa la daruri commencé ba timis tàkkusaan nag bu sa ker tolloog yow la waxtu yi ba timis waaye muxtaar bi mu ngi yem bu sa ker bu la sa matee ñaar kon darul yom mu ngi commencé bu la sa ñaar ba timis boo xoolee darul yi tusbaar moo gën a gudd darul yi takkusaan ndax darul tusbaar mu ngi commencé ci muxtaaram takkusaan ba timis dégg wal muxtaar waxtu ñu tànn lil maghrib ñeel timis xaddur ma mooy kemoog la nga xam ne tusalaa def nañ julli fii ci moom baara shurutiha gannaaw ay chartam muxtaaram timis nag mooy lan mooy rek loo xam ne nii sangu farata dégg nga lal sa sajaada julli moo ci xaj maanaam li nga xam ne laab julli moo ci xaj xam nga laab ñaari xaj la bu dee jàpp la war da jàpp bu dee sangu la war nga sangu sangu nag mu gën a gudd kon jiir boo xam ni sangu farata xaj na fa préparé julli loolay muxtaanal timis gannaaw bu jant bi sooyee la commencé nag kon timis fu mu commencé bu jant bi duggee fu mu yem buñ jullee ba pare rek moom dafa gàtt muxtaaram foofu la yem dariru yem nag danañ ci ñëw wala muxtaar waxtu wi ñu tànn dinañ caay ñeel gaye min maribi shafaq yi muy commencé ci faddu shafaq ga ilaa sulusi leylil awali bas ñetteelu xaaju guddi gu njëkk muxtaaram gaye muy commencé si bu xonq-xonq jant bi duggee moom du safar safar mooy xonq-xonq jant bi jant bi bu duggee fa mu nekkoon dana des ay ceeneer yu xonq loolu buñ duggee ba lépp dem nga xam ne boo xoolee foo jant bi génne woon amul benn xonq-xonq na nga xam ne moxtaram gee dugg na maanaam waxtu gee jot na fu mu yem boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu njëkk bu jeexee rek moxtaram gee jeex na wa daruri huma seen daruri ñoom ñaar ilaa turan fajar na ba fajar xar ñoom ñaar seen daru yi fu mu yem mooy bu fajar jotee kon timis buñ jullee ba pare rek fa la daru doon commencé ba fajar gaye it bu ñetteelu xaaju guddi gu njëkk ki jeexee rek fa la daru doon commencé ba fajar daru yi nag mooy waxtu yi xam ne boo amee ngànt mën nga see julli waaw ku bàyyi waxtu muxtaar mi nag julli ci waxtu daru bi te amoo benn ngant am nga bakkaar bu dee ngànt nag amoo benn bakkaar wala muxtaaru waxtu wuñ tànn li subi ñeel suba minal yi muy commencé ci fajar ga ilal isfaar yi ba si bët set ga la ala bu kawe bi muxtaaram suba muy commencé fajar bu fajar jotee la commencer fajar nag mooy buñ salaatoo buñ salaatoo rek la waxtu fajar di jot xam nga fajar danañ ko nodd te waxtu yi dugugut nodd yi ngay gis ñu ñëkk nodd yëpp boobu waxtu yi dugugut waaye saa yoo dégg nit nodd salaatu xayrun mina nawmi rek xamal ne waxtu fajar mu commencé fu waxtu wi yem mooy bu demee ba leer ba koo xool xàmmee ko xam ne diw la yére sàngam la sol bu yeggee foofu rek muxtaar mu jeex na daruri bi fu mu commencé mooy bu leeree fu mu yem lay wax ni wa darurihu daruriyu suba ilaa tournée shamsi dem na ba jant ba fenk julli suba nag daruriyum mooy bu demee ba bi fenk saa yu jant rek waxtu suba bi jeex na takk bi jeex na ku jullee si da ngaa fay loolu tax mu ne wal qadaaw fay fi jami ci mboolem waxtu yi maa wara zalika nekk na li ci gannaaw muxtaar ak daruri képp koo xam ne xaar nga ba muxtaar mi jeex waxtu muxtaar mi jeex waxtu daruri bi jeex nga dooru julli boo boo julli na nga yéene fay ndax da ngay fay ku julli si daruri nag da nga yéene jox mooy julli ci waxtu wi waaye nag bu dee amoon benn ngant am nga bàkkaar loolu lay wax ne wa man aqara asalaatu julli hatta xaraja ba mu waxtu ha waxtoom mm. fa alayhi war na ko zanbun bakkaar azimun baaji màgg illaa yakuna damay mu nekk naasiyan daa ji fàtteew naayaman wala ji nelaw képp koo xam ni dafa yéex a julli ba waxtu muxtaar mi génn rek am na bakkaar bu mag rawatina nag nga xaar ba dër bi génn lu may mu fàtte woon ko wala mu doon nelaw waaw maanaam lu may mu ngant yeneen téere yeneen taqrir yan mooy ngànt yi walaatu salaa defu ñu julli naafilatu naafila baada salaati subi gannaaw julli suba ina tifaa shamsi ba yëkkati ko jant ba mu ngi lay jàngal waxtu yi nga xam ni dañ cee tere naafila wa baada salaati asri ak gannaaw julli takusaan ila salaati almaghribi ba julli timis wa baada tuluu alfajri ak gannaaw xarak fajar illa al wirda lu muy ab dog dinaa yemee ñu anu walis wa inda julusi imaamil jumaati ak ci toogaayu imaamu juma alal minbari ci kaw minbar bi wa baadal jumaati ak gannaaw juma hatta yaxruja batu mu génn minal masjidi ci jàkka ji. fii daf see boole waxtu yi nga xam ne dañ ci siba naafila ak waxtu yi nga xam ne dafay xaraama naafila mu xam nga moom naa wax ne gannaaw fajar ba bay jant ba fenk sib nañ ko fa naafila waaw. waaye gannaaw fajar ba ba ngay julli suba nag su fekkee daa am dog boo doon def si guddi gi fàtte ko nelaw ba nga yeewu rek ñu noo salaatu xeeru mel noonu fa nga ko def mën nga ko def gaaw balaa ngay julli suba waaw loolu mën nga ko def balaa ngay julli suba boo xasee julli suba nag dootoo ko mën a defati boo xasee julli suba sa dog boobu dootoo ko ma a defati loolu waral mu teqale ñaar yooyu ne gannaaw xarak fajar man tere nañ ko fa naafila maanaam sim nañ ko lu mooy ko amoon dog nelaw ba ko mën na ko def balaa julli suba waaw bu ñu xasee julli suba ba pare moom kenn mënatu faa def benn naafila fekk bay jant bi fenkee koy sib bu ñu julli takkusaan ba ñu julli timis sim nañ ko fa naafila dégg jamono bii jant bi fenk rek moom waxul ko dafay xaraam ko fay naafila naka doon tamit jamono bii jant bi soo nga xam ne mu ngi soo foofu it fa dafay xaram imaamu juma bu toogee ci kaw minbar bi naafila dafay xaram waxuma bu toogee ci waaye imaam bu génnee nga gis ne mu ñëw ci jàkk ji waaw ah, imaam imaam mu dugg ci jumaa ji su boobaa it naafila dafay dafay xaram foofu si buñ ko dafa xaram imaam buy ñëw wala mu dem ba toog ci kaw minbar bi foofu naafila dafay xaram lu mooy nga doon naafila te imaam duggagut ah soo doon naafila te imaam duggagut nag su boobaa même bu duggee mën nga ko mottali gannaaw bu mu jumaa bi ba pare dañuy sib ko fa naafila lu mooy nga génn ca jàkka ja wala nga toog fa diir bu yàgg ba nga xam ne nii fàtte woon nañ sax ne ci jumaa lañ nekkoon su bàyyi mën nga fa naafila dina génnoon <coughs> faslun li ab fasale la fi shuruti salaati ci sartaay julli yi wa shurutu salaati sartaay julli hmm. tahaaratul xadasi mooy laab si toj wa taharatu xabasin ak laab ci sobe minal badani ci sa yaram wa saw bi ak sa yére wal makaani ak place bi ngay jullee wa satur awrati ak sutura awra wa istiqbaalu qiblati ak jublu qibla wa tarkul kalaami ak bàyyi wax wa tarku afaani ak bàyyi jëf alkaseeru ju bëri sartaay julli juróom benn la mooy laab ci toj ak laab sobe laab su toj nag mooy jàpp wala sangu wala tiim mënu ñàkk balaa nit ki di julli kooku moom loo ci amoon ngànt danga ko def boo mënul jàpp rek mënoo julli mënoo tiim loolu teqaloo nañ ko léegi julli wàcc na la ni ko Maalik waxee ñaareel ba mooy laab ci sobe foo nga set sobe foo war a set sa yaram ak sa ak barab bi ngay jàpp ah te da ngay julli te sa yaram am sobe dégg nga mënoo koo dindi nga am ngànt ci dindi ko ba julli ba pare door koo mën a dindi su boobaa da ngay dem dindi ko te ba julli bu dee waxtu bi génn su waxtu bi nga bàyyi su dee am sobe fàtte koo dindi ba julli ba pare man koo dindi su boobaa da ngay dem dindi ko bu waxtu bi génnut bu waxtu bi génnee nga ba noonu la ñetteel bi mooy suturaal awra suturaal awra moom bu dee danga nga koo mënut da julli rek sa yi mënoon nëbbu sa awra jullil noonu ah boo jullee ba pare nag man koo nëbbu xam loo ko nëbbee te waxtu wi génnut jërul nga koy baamaat bu fàtte woon nëbbu sa awra nag ba julli ba pare fàttaliku ko su boobaa na nga ko baamaat bu waxtu wi génnut su waxtu wi génnee nga bàyyi jublu xibla mooy jublu kaaba ga rek ku ko mënut da jublu foo mën a julli rek jublu rek julli gannaaw ko soo ko mënee nag te waxtu bi génnul jëru nga koy baamuwaat ku ko fàtte nag fàtte jublu xibla ba sëlmal ndekk yoo moom jubluwut jubluwutoon mu fàttali ko te waxtu bi génnul koy da koy génnee mu mu baax kon su daal awra ak jublu xibla ku ko mënut ba jullee ba pare wàcc na la dégg nga waaw waaye ku leen fàtte nag boo jullee ba pare nang nga ko baamaa su waxtu génn su waxtu génnee nga bàyyi laab si sobe nag moom nga man ñàkk koo man ak fàtte ko si yam gannaaw soo ko mënee wala nga fàttali ko te waxtu wi génn na ko defaat nang ko def te baamaa julli su waxtu wi génnee na nga baa amma laab si toj muy jàpp wala sangu wala ci mënul ñàkk moom fàtte boo ko fàtte woon it bu julli sa jàppoo hmm, hmm, sangu woo tiimoo ah, su boobaa na nga da ngay baamaa julli gi ba ba faw waaw boo ko mënul nag mënoo eh, jàpp bu dee jàpp la war mënoo sang bu dee la war mënoo tiim bu tiimee sa farata waaw moom ndox daala moo suuf ah su boobaa teqaloo nañ léegi Maalik nee na kooku julli wàcc na ko juróomeel ba mooy bàyyi wax pour julli baax il faut nit ki bàyyi bàyyi wax wax ju bokk ci julli gi amaa bu dee wax ju bokk ci julli gi la ni ki imaam bi euh, juum laajte si ñëw ci mujj téer bi loolu dara nekku ci wax ju bokk ci julli gi nag lu mu néew day yàq julli bu dee borom a ko tey bu dee teyit ko nag danañ si ñëw ak bàyyi jëf ju ju bëri mooy lan ngay def loo xam ni ku la xool nekkut ci julli sooy julli def jëf jëf joo xam ne bokkut julli gi ba ku la xool yaakaar ne julli woo rek xamal ne bëri na su julli gi yàqu la laab si toj laab si sobe soturaal awra jublu xibla wax ak bàyyi jëf ji bëri suñu téere si kanam danañ ci leeralal danañ gën a leeral soturaal awra googu ndax am bu xiis am bu xiis dafa am bu haay ak bu haayut danañ si ñëw wa awratu rajul surati mooy lu commencé si jimbax bi ila rukubati ba ci xoom góor xawaraam fu mu commencé mooy jimbax bi ba ci xoom foofu la war a nëbbu dégg nga danañ ñëw bi ci xiis ak bi ci xiis lu téer yi ci kanam wala maraatu jigéen kullaa léppam nag awratun na la maadal waji lu mooy karam nga wal ka fay nag ñaari tenq yi jigéen bu dee jaam la awraam comme awraay góor jimbax bi ba ci xoom yi mooy awraam bu dee góor nag moom yaramam yëpp awra la ba mooy kanam gi ak ñaari tënk loxo yi dégg nga bu dul loolu dafa war eh, yëpp moom it danañ ñëw ci awraam li ci xiis ak ci xiisul si si si yeneen yi téere téere bi nag téere commencement lil mubtadiina la lil mubtadiina wa tukrahu sib nañ julli fi saraawili ci tubay illa ida kaan lu mooy nekk na fawqa ca kawam cheyun dara sol tubay kese xam nga góor awraam mooy jimbax ba ci oom yi hmm. mu sol tubay yoo xam ni muur na jimbax ba ci oom yi rek julli noonu te teewut ci kaw yaram bi dara loolu dañ ko si boo yàqut julli ka faman tanajasa ku sobewu sawwu malaanam wala mu ji tamut sawban malaan xayruhu budul moom wala mu ji tamut maan ndox yàq suloo bu ko raxasee bii ci moom awalam yakun wala dafa nekkul indoo fa moom maa yalbasu lu mu sol xataa yàq suloo raxas ko waxaaba tam ragal xurujal waxti génn waxtu wa salla na julli bi najaasatihi ànd ak sobeem am ci gàttal li mu bëgg wax daal mooy ko am sobe te mun ko dindi lott na ci dindi ko na julli waa rek sobeem loolu la wax ne dafa am sobe ah taamul beneen yére duul yére boobu am sobe wala boog am na beneen yére sax waaye amul ndox mu ko raxasee ولا am na ndox mu ngi ko raxasee sax waaye amul yére bu mu solaale ba raxas yére boobu xam nga su fekkee amul yére bu mu solaale ba raxas yére boobu noonu bu simmee yére boobu di ko raxas balaa mu moo woo ba mu koy sol waxtu bi dana génn moom boo nee na mën naa julliwaaleeg sobe si dégg waaw mën naa julliwaaleeg sobe soosu sobe daal saa yu ko mënul dindi rek julliwaaleeg moom boo jullee nag boo waxtu ba génn nag jëru sax baamuwaat boo waxtu bi génnoon nag nga baamuwaat ko soko ko mënee defar loolu waxon nañ ko ci gannaaw wala yaxin du dagan taaxiru salati yeexa julli li adami taharati ngir ñàkk a laab ñàkk du tax nit ki yeexa julli bu dee laabo maanaam am nga sobe te waxtu nga waji génn da ngay julli walek sobe sos waye nak laab ci sobe lañ wax bu dee ñàkk laab ci toj moom maanaam mënul jàpp mënul sangu mënul tiim hmm. kooku kay mën na bañ a julli ndax waxoon nañ ko ci gannaaw ne Maalik dafa wax ne laa yusalli wala yaqdi du julli du fay bu man faala ku def zaalika loolu faqad asaa mooy na rabbu borom maanaam ko am sobe rek tax nga yéex a julli ba waxtu ba génn mooy nga sa borom moom la muy jël ko amut maesturu lu mu suturaalee bii ci moom awratoo awraam sallaa julli xor nañ ci rafle ku amul yëre yu sol ba nëbbu awraam na julli noonu su fekkee da koo mënutoon nag gannaawam jullee ba pare jëru sax muy baamuwaat su fekkee nag da fàtte woon gannaawam jullee ba pare su ko fàttalikoo te waxtu yi gënoon na ko baamuwaat. Hmm. loolu leer na lañ ko si ku dëddu alqibla te qibla. aada naka baamu fi waxtu ci waxtu ku mooy e, kaaba ga ah na baamu ca waxtu ba su fekkente ne daf koo mënutoon hmm. mënutoon a jublu qibla. moom julli ba pare jërul sax muy baamuwaat loolu waxoon nañ ko bu dee mënoon naa jublu xibla nag waaye da ko fàtte woon ba pare mu doo ko fàttaliku te waxtu bi génnut na ko baamuwaat dégg nga loolu wa kulli aadatin bépp baamu fil waxtu ca waxtu wa la lépp loo gis ñu ne nañ ko baamu ci waxtu wéy su waxtu wéy ñu ba xamal ne baamu gi dafa gën waaye boo ko baamuwul julli nga yàquut mhm. julli ko baaxoon na waaye julliwaat ko rek moo gën lépp loo la ne na ko baamu ci waxtu wa xamal ne baamuwaat ko dafa gën rek waaye julli gi baaxoon na nga baamul bu faw rek mooy julli googu yàqoon na wa kullu ma lépp loo xam ne tuwaaru danañ baamu minu ngir moom asalaatu julli fil waxtu ci waxtu wa xamal ne fala tuwaaru dañ baamu minu ngir loolu alfaayatatu julli gu faat wa naafila ak naafila lépp loo xam ne boo ko defee si julli dañ naan na ko ko baamuwaat ci waxtu wa xamal ne bu waxtu wi génnee wóyut hmm. ko su waxtu wéyee kon du baamuwaat naka noonu bu dee naafel du ko baamuwaat xam ko am sobe julliwaale ak moom julli farata ah ba sëlmal mu door ko fàttaliku dañ naan ko na nga na nga ko baamuwaat su waxtu wi wéyut bu doon naafel la nag da doon julli naafel am sobe ba sëlmal doo ko fàttaliku jëru sax mu koy baamuwaat ndax naafel kenn du ko baamu naafel daal biñ ci baamu ah, mooy boo xam ne nii waa ji moo ko tay dagg ko wala mu tay ko bàyyi efrata maanaam bu yàqu loolu dafa yàqu xam nga hmm. su boobaa daf koy waat doo faw waaye lépp lu ñuy baamu ci waxtu wi bi xamoon ne loolu boo ko defee ci naafira jëru sax nga koy nga koy baamu